Euh, ñi fàttali mbokk yi ñu ngi ak oustaz Alioune Sall ci ligne bi euh, gannaaw ba ngeen xamee ni euh, julli gu ajjuma gi te mu dëppook li nga xam ni rek mooy inauguration Massalikul Jinaan tey mbir mu moo xamante ni ji ñëpp rafetlu na ko mu am fa tey muy diggante président Macky Sall ak maître Abdoulaye Wade ci jubboo goo xamante ni ji ci kanamu jullit yëpp ci kanamu tamit ki nga xam ni mooy xalifa général des mourides di mun tax Mbacké. Euh, euh, oustaz euh, ginaaw bañ la nuyoo sant la ci jokkoo bi ban jàngat ngay def ci li nga xam ni am na tey ci diggante ñaari kilifa. alhamdulilah maa ngi am mbégte ci jokkoo bi. Mhm. baax baax. xam nga man yàlla def ma bind ci noo xam ne su ma sañoon kilifa yëpp ñooy ànd nekk benn. Mhm. donc yëpp ànd nekk benn. Mhm. politiciens yëpp ànd nekk benn su ma sañoon mooy am. Mhm. kon bu gisee lu mel ni Masaalikul Jinaan woote te moom suñ tubaab bind ci biir téere boobu. Mhm. bind boole. Mhm. ndax daf ne is kullu wirdin yurdil murid li xadratillaay. daf bépp wirdu bu nit jàpp. wirdu woo nga jàpp daf la yóbbu ca yàlla. bëgg fi wax na kon wirdu yëpp a yóbbu nit ca yàlla. mu ne moo xam wirdu woowu. wirdu Cheikh Ahmad Tijaani la. moo xam wirdu Cheikh Abdul Xaadir Jilaani la. moo xam yeneen wirdu yoo xam ne bokkut ak seen ñaari wirdu yi. Mm-hmm. mu ne ndax wirdu yëpp xataan xataan ala sawa bi yëpp a yëpp a baax mm-hmm. kon nag ku mel noonu su fekkee dafa ci téeréem da mm-hmm. ba jamono ñu tam samp jenn jàkk wala jenn jumaa tudde ko téere booba mu bindoon loolu ñu jàkk ji li taxaw ci loolu du du asaar am solo ci ci yëf Mm-hmm. moo tax man naa ci yëg-yëg lool am naa ci kontaan lool te sama seen mu gën a jëm kanam. Mm-hmm. Euh, jërëjëf ci loolu tamit euh, maanaam ci wàllu euh, lislaam ak diggante jullit ak moroom tey lu mel ni bu amee lan lañ ci lan la ci suñu borom bi subxanahu wa maanaam digle ñi nga xam ne ñoo jaamam yi. waaw jaam lim lim leen digal saa su nekk rek mooy genn yàlla ngeen am wenn xeet ngeen. Mm-hmm. nangu leen ma nekk seen borom ngeen nekk benn xeet jokkalante mhm. te sëriñ bi suñu borom mosuñoo sant naan na ngeen niroo daf ñuy sant na ngeen nekk benn mhm. nekk benn kon mooy joxante loxo joxante xol ànd liggéey te loolu mooy jëmale suñu réew kanam mhm. donc mun gisee joxoñ mel noonu sunu borom lu ci bëgg la ndax inna man nu ixwa yéen ñëpp ay mbokk dong ngeen yéen dong di ay mbokk jërëjëf Euh, ginnaaw jubóo gi ci ñaari kilifa yi nga xam ni ñu bari euh, bëggoon nañ ko mu mel ni dafa takatémbe tey yàlla def mu am ban njàngat la ci askan wi mën a am. waaw yàlla lu muy def nag day am fu ko jaarale. Mhm. lépp lu yàlla def day am fu ko jaarale ko wutal sabab. sababu tey bi mooy ñoom ñaar ñii kenn mënutoon absenté affaire bi. Mhm. ñoom ñaar ñii kenn warut mënutoon absenté affaire bi ndax boo ko absenté am na point yooyu ñàkk ci wàllu yoo xam ne dab dawaatal ko dana la jafe. Mhm. ci nag xam nga loolu ginnaaw bi ñu xamee loolu it ñu xam ne euh, alxalifa Cheikh Mountakha moom tam mënut a wëtte loolu. Mhm. kon ndaje bi fokk moom. Mhm. bi ndaje bi amee kilifa diine yëpp a ngi fi. kër goo xam ci diine rek seen représentant ma nga foon. Mhm. donc buñ ko ñëwee itam damaa defe ne mënuñoo ñëw def ci fi gone. def ci fi gone mooy ñu ñëw kii jox loxo moroom mu lànk wala kii jox ko loxo mu lànk loolu mënuñu ko. kon loolu la yàlla day am fu mu ko jaar rek loolu rek moom mooy ci njàngat mi ñu ñëpp loolu lañ ko yàlla mhm. lépp am na ko jaarale su def mhm. uh-huh. loolu nag uh, laaj bi ñuy uh, tàggatoo yëkkati jataay bi comme ni nga koy faral di waxee uh, mhm. maanaam tey li nga xam ni moo fa yóbbu woon doomu aadama yi ci ginnaaw bu mu tombeek li nga xam ni mooy yomal jumaa ban jàngat nga def ci liggéey bu rëy bi nga xam ni def nañ ko ci néegu yàlla bi te xam ni comme ni ko sëñ bi waxee rek jumaa yi Masaalikul Jinaan tijaan moomu ko murit moomu ko laayeen moomu ko xaadir moomu ko Euh, masjidu lillaahi lañu wax. waaw xam nga dafa am benn kilifa ci kilifa chrétien yi ku ñuy wax Benjamin. Mhm. ba mu àggee la mu fa wax rek loolu ñun ñëpp mooy sunu jàngat. est-ce que mooy ñun ñu ngi samp sunu barab necc mu yàgg lool. Mhm. danoo bëgg ñëw fii ngeen jàngal ñu wala ngeen ñaanal ñu nan ngeen def yéen ba yëkk ci lii ci diir bu gàtt bi ñaar fukki milliards mu taxawi nii. Mhm. donc loolu mooy njàngatu ñëpp ay yëg-yëg lañ ci am. mooy ndekete noonu ci Sénégal gi mm-hmm. bu nu manqué loolu lañ mën a def. Mm-hmm. mbokk bi xool barki démb rek fukki fan juróom lañ am doon dajale téeméeri million. Mm-hmm. nit ñu matul fukki nit dajale téeméeri million. ci fukki fan ak at nit ñi dajale fi ñaar fukki milliards ak lu topp. taxawal ci jumaa ji. li muy tekki mooy kon suñu joxante loxo manqué lu mu bëgg a def mën ko def. loolu rek lay tekk jërëjëf sa laaj yi am solo yi. kon daal booloo si la lépp xaj. booloo si la lépp xaj ak joxante loxo. jërëjëf Sane Aliou Sall ñu ngi lay sant di la gërëm Sénégal set mi ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf maa ngi nuyuwaat Sénégal 7 yëpp. jërëjëf.